salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna maa ngi fi si Pologne waroon def si combat tey fi samedi bi euh, yàlla def ma doon sant benn douleur si sama côté bi euh, après ma demoon hôpital médecin yi consulté ma ne mënoon def combat bi tey donc ñu annulé combat bi pour prochaine fois euh, am na nag ay rumeur yi daw que dañ ma dañ ma hospitalisé mais fekk hospitalisé maa ngi nii di sant yàlla bu baax. léegi naa it naan dañ ko opéré kenn opéré wu moom euh, defal nañu nag ay perfusion yoo xamante ni pour calmer douleur bi la donc médecin bi moo ne ñu mënuñu def combat tey kon dañ koy reporté ba prochaine fois di wax Sénégal gépp ni ñaan yi egsi na ñu ngi sant yàlla bu baax surtout nag di gën a leeral ni euh, gars yi wax ni dañ ko opéré dañ ko hospitalisé yi wax dëgg yàlla ñu ngi nii si kër gi toog di waajal dellu Sénégal pour reprendre suñu entraînement wàcc nañ combat yi kon ñëpp ñi am doon ñaanal ñu leen di sant di leen gërëm di leen wax ne nañ gën seen xel ñu ngi sant yàlla bu baax jërë ngeen jëf